Moustapha Kansaw mhm. sama xarit bu baax bu dëkk Rëbës ci moom laa jëkk amee ñaari xar tàmbalee ci loolu et après nag euh, virus bi gën ma dugg ak NMA xam nga rek boo boo nekkee ci biir milieu bi euh, di jox nit ñi ay xont ak ñoom seen fu ne nga dugg fa di gis jur gi day gën a dekkal lu bari mhm. bi ma ñëwee nag ndar wut fii benn euh, béréb bu xaw yaatu Euh, ci laa exprimer dëgg dëgg dëgg nag li nga xam ni moom mooy sama amour ci ci élevage ci ci ay garab ak ci aar donc moo tax daal euh, du ma gëj ndar ndax fii daal fii laa amee loo xam ni vraiment su ma ci nekkee damay bég daal. bëri naa ay espèces yu may yu may yar euh, kii espèce bii moom c'est une espèce euh, pakistanaise bëy bëy bëy la waaw bëy la boo xamee ni soo xoolee mensuration yi daf lay impressionné parce que am na hauteur am na longueur te itam am na euh, li ñuy wax chair daal moo tax man dama naa yaakaar ni fi mu toll nii Sénégal dañu war a aussi jàll ci amélioration parce que soo xoolee suñu raasu bëy yi dañu nekk ay bëy yu tuuti yoo xam ni boo xoolee boo leen peesee lu bu bari ba bari ay dix quinze kilos te bëy yi soo xoolee bu baax boo ko bu ñu nekkee ci seen état dëgg euh, cent kilos yi du leen jaaxal donc euh, moo tax man ci ci loolu laa nekk jënd d'abord ay euh, pakistanais jënd aussi ay boer ñoom ñoo nekk nii ci biir Euh, jënd itam ay calories rouges parce que espèce bu nekk soo xoolee bu baax euh, bokkuñu corpulence maanaam booy defee croisement yi toujours da ngay nekk ci amélioration continue wut aussi bëy wi nga xam ni day meew mi day yokk ay boor ay saneen san waaw saneen yi moom euh, France la ñuy jógee mhm. alors que boor yi ak calories rouges yi ñoom Afrique du Sud la jóge mhm. boo xoolee ñoom seen capacité c'était plus des bouchères maanaam dañuy indi yàpp dañuy am longueur am poids ce boo ko croisé sax ak euh, race sénégalaise yi wala race soudanaise yi nga xam dañu xaw kawe sew da ngay am bëy boo xam ni am na suux bu ko defee boo booy wut ndawal euh, pour njaayee ni day daal di daal ci ñoom waaw waaw moom am na fi ay. wàccee na fi waaw bii wàcce na fi. mais bi muy wàccee dama ko boole ak benn calorie rouge. mu mu génnee la lii. donc boo xoolee corpulence bi. Ah. dafa gën a am kàttan. Mhm. boo ko boo ko miinul trop sax da ngay yaakaar ni boyer la. Mhm. fekk du boyer. Mhm. calorie laa boole. teg ko ci ah. sudanais. Ah, mais dana yokk hauteur bi. te dina yokk kàttan fi mu nekk nii ci ñaata weer la toll. lu ndaw la kii amoon am deux mois à près la la la am waaw. yaay ji tëboogul sax. mat mat noo ko waaw. kii c'est un jeune mâle euh, boer. ñooy jógee Afrique du Sud. ñooy jógee Afrique du Sud. waaw uh-huh. kii euh, bi ma ko indee yàggul trop. Mhm. parce que amoon naa beneen maal boo xam ni euh, dama ko génne parce que xam nga bu ñu commencé jur bu yàgg soo bëggulee mu am consanguinité mhm. souvent da ngay génne maal bi duggalaat beneen maal loolu mooy permettre euh, maanaam race bi nga bañ ko nga bañ ko téye léegi nag euh, lépp lu mu jur dama koy boolee aussi ak yeneen race maanaam damay wut race pure bi mhm. mais aussi damay def ay croisement ak yeneen espèces yi par exemple comme soudanais yi comme pakistanais yi ak yu mm-hmm. demee noonu mm-hmm. bu ko defee toujours dafay yéem parce que danga gis toujours benn espèce bu bees boo xam ni da xaw wute tuuti ak race pure bi mm-hmm. mais en fait euh, da ngay combiner ay qualité race améliorée lay doon daal voilà voilà da ngay améliorer da ngay améliorer parce que da ngay gis lii faiblesse su espèce bi di qualité fële nga jaxase ko boole ko bu ko defee ngay am toujours loo xam ni mooy gën race pure bi yuuxu du tax ñu génn. waaw xale bu baax. Mhm. benn euh, soudanais laa jël. boole koog Boyer. Mhm. mu génne jeune agnelle euh, femelle bile. honnêtement soo xoolee bindam ak bindu yaay yi da gis tout suite. am na amélioration parce que am na am na kàttan boo xam ne yaay ji amu ko woon. gabarit bi waaw gabarit bi. Mhm. peut-être que dina wàññi tuuti hauteur bi. Mhm. mais en tout cas au point de vue puissance. ak mhm. force ak yàpp. da ngay gis tout de suite que am na différence. ak euh, souche mère bi waaw. loolu lañ ci wut. Euh, tey lan ñuy wax ci sanin yi ak euh, ñaata litre la ñuy génne seen période top waa je pense que ñoom lu mu tuuti tuuti bu fekkee alimentation bi jaar na yoon euh, au moins tous les jours mun nga génne cinq litres waaw euh, da nga mën a ratt le matin mën nga ratt l'après-midi te avantage bi ngay am mooy boo amee béy yu mel nii sa gét mooy di nga ci mun a consommer mais aussi mun nga ci mën a jàppale yeneen espèces yi xam nga léeg nga sa biir gétt nga am xar boo xamee ni yaay ji bariwul meew wala nga am même benn béy boo xam ni Euh, yaay ji ñetti doom la am da ngay mën di sàkk ci ci meew mi daf ci biberon jox ko mm-hmm. yeneen waaw waaw muy jàppale ce qui fait bëy yi moom en général euh, dafa am double avantage mm-hmm. moo tax di ko am sa gétt mm-hmm. pour man lu am lu am solo la quoi donc euh, man li ma ci gis en tout cas mooy mooy loolu am na ci beneen boo xam ne malheureusement ah. dama ko mujj génne mais jàppale na mu bu baax a baax à l'époque ci élevage bi Ah, yi ay oa la mhm. mooy oa de Rouen yi mhm. moom li nit ñi xam nañ leen bu baax mhm. bi itam ay oa de Guinée la waaw moom aussi euh, espèce la bu mën a jur ah. seen reproduction aussi gaaw na euh, da koy yóbbu couveuse non ñoom nag avantage bi ngay am ci ñoom c'est que ñoom seen bopp dañuy boof ah, waaw am nañu fi xam nga ñu bëri dañuy am tendance euh, jël yëpp di yóbbu ci couveuse mais yii chance bi nga ci am. ñoom seen bopp mun nañu. ñii waaw waaw boof ko ba mu ba mu ba toj daal. Ah, gis nañ fi tam ay jàmbu jóob. waaw jàmbu jóob waaw jàmbu jóob itam. waaw bare naa ci couleur. xam nga jàmbu jóob ñi li ñu ñi gën a xam mooy yi nga xam ni mooy. Euh, multicolore yi yi mooy bleu yi. mais jàmbu jóob am na ay yu vert. Mhm. am na yu weex. Euh, am na ci yu marron. Mhm. am na sax yu gris. Mhm. waaw espèces yooyu aussi euh, raar nañu mais ay espèces yu rafet lañu te surtout nag bu ñu nekkee ci période du euh, novembre daanaka ba mois de juin avant ñuy bàyyi seen geen yi euh, ba buñ koy firi Euh, mooy seen période de reproduction. Mhm. mais vraiment da ngay am ay scènes yu rafet. Mhm. maanaam vraiment day day dundal bët daal. moom mooy autruche. xam nga waaw Banjoli Ndiaye moom. Mhm. daanaka bu kontaanee. day fecc day fecc. maanaam bu la seenee fekk gëj na la gis. Euh, seen la euh, au lieu mu taxaw day daal di fecc fecc yooyu nag day day sukk. di dóor bopp bi ci ci ndigg li mhm. pour wane ni daal am na mbégte ci li mu la li mu la gisee mm-hmm. moo tax jur gi moom mm-hmm. booy dund ak ñoom si ngay comprendre nu nu ñuy ñu ñuy comporté wu communication bu ñuy def da ngay xam ñu ngi fii ci wàllu élevage ovin bi euh, euh, xar bi bëggoon nañu nga wax ñu moom mooy kan waaw kii de maa ngi ko tuddee Macky di sama doom sama doom bu bu góor bi nekk euh, footballeur professionnel au aux États-Unis waaw moom ma tuddee ko Macky nit ñi sax dañuy yaakaar ni euh, président de la République laa ko tuddee mais dafa tombé waaw mais mais euh, doom doom voilà doomu magistrat la bi bi magistrat Souchou Aboukan la Galoya waaw donc foofu laa amoon benn belle femelle ma yóbbu ko fa ñu tëb ko mu indi lii gis naa ne mag yi dafa mel ni da nga ko booleek de france yeeg yooyu ba mu am njeexital ci wàllu amélioration génétique. waaw c'est vrai que xam nga xar bi boo xoolee spécificité am c'est que dafa am kattan am doole te souche su magistrat en général souche la boo xam ni dafa dafay gudd bu pare dafay njool dafay am dayo voilà am hauteur. Mhm. moo tax ma xalaatoon boole ko ak euh, benn Île-de-France bu ma bu ma bu ma amoon jëlee woon ko fële ci Bayax. mu jural ma nag effectivement benn métissage bu bu jéggi dayoo boo xoolee jeune bi bi mu génnee jeune mâle bi il a à euh, euh, quinze mois. mu ngi dugg ci seizième mois mais boo xoolee. ak ñeenti weer ñeenti weer mais vraiment c' est un jeune mâle assez exceptionnel. maanaam boo xoolee mbindam quoi. et je pense que bu ñu mënoon am croisement yu mel noonu. Euh, dana mën a faj soxla yu bari parce que pratiquement bi mu bi muy dugg déjà ci neuf mois am rek soo xoolee bu baax presque dépassé woon na ay soixante dix kilos waaw ci déjà corpulence nga xam ni c'est des sujets yoo xam ni baax na trop surtout pour ay tabaski gi demee noonu parce que dafay am une corpulence exceptionnelle. fi mu ne nii li ñu doon wax ci mag yi muy muy géniteur bi nga xam ne moo nekk ci kër gi. nga boole ko île le france gis nañu résultat bi nga xam ne moom la jur. waa Ndar yi ñoo ko tuddee Balla Gaye waaw yow da nga ko séen rek gis gis doole bi rek daal ni da ngi Balla Balla Gaye nañ ko jox tur waaw donc effectivement comme li may wax rek euh, fi ñu toll ci élevage war nañu xalaat un peu di di di xalaat croisement euh, man mii euh, jëm naa def ay croisement ak école vétérinaire bi ak professeur Misao bu indi woon ay euh, maanaam ay semences euh, américain ñaari espèce waxoon na ma est-ce que ça ma jox ko ñeenti femelle malheureusement euh, jotuñu ko réussir daal mais xam naa ni école baa ngi ciy gëstu ce qui fait man nag li ma doon xalaat mooy def carrément monte naturel mm-hmm. te monte naturel bi moo ma may ma jël makki teg ko ci benn Île de France mu génneel ma jeune mâle bi voilà te maal bi justement mhm. euh, Macky bi ma bi ma Balla Gaye bi mhm. dama ñëw tegaat ko ci beneen euh, laadum mhm. mu génneel ma aussi beneen añeel boo xam ne ni boo ko gisee rek da ngay gis tout de suite que am na changement ak euh, mbote laadum normal yi boo gisee kàttan gi ak corpulence bi da ngay xam tout de suite que kii mi ngi indi aussi beneen espèce animal Euh, fi mu nekk nii ñu ngi liggéey euh, élevage bi maanaam ñu ngi def wàllu amélioration génétique waaye boo xoolee tey ñii wàllu caractérisation maanaam labellisation bi tey buñ ko doon def tey mën nañ wax ne daanaka pur sang lañ. <laughs> waaw waaw c'est vrai boo jëlee ñaari pur sang. da lay jox peut-être beneen espèce. xanaa wutal ko tur waaye pour le moment comme euh, déjà laadum bi rek. ñu ngi jéem a génneel. ay caractéristiques am ñoom Abou Kane euh, Fenafo ak euh, Renades je pense ñi ngi liggéey ci loolu euh, génne aussi ay carnet juste pour jox une identité à la race Ladoum du, du Sénégal et ça vraiment ça c'est une excellente chose maintenant nag au-delà de ça war nañu xalaat également lan lañu ñu indi lu bees pour que suñu race locale yi ñu boole leen ak ay race yoo xam ne ñoo ëpp Euh, yàpp pour mën a am maanaam ndawal yoo xam ni dina mën a baax ci ci ci maanaam consommateur yi. fii en fait euh, race ngi fi mais aussi am na métissage. boo xoolee bu baax euh, mooy jeune mâle bi ma la doon wax bi ñu tuddee Balla euh, moom métissage la ak femelle bi mu takkal bi Île-de-France la Île-de-France lañ jël teg ko ci Maki mu joxe mâle bële ma jëlaat Île-de-France bi tegaat ko ci beneen mâle boo xam ni souche Teranga la mu génneel ma jeune femelle bi donc euh, bi aussi métissage lay doon te bu fekkee yàlla def na li gën mhm. euh, dama koy tegaat ci benn laadu mhm. pour xool lan la may jox mhm. maanaam ci ci wàllu espèce parce que ah waaw am am na fi mâle am na fi femelle te euh, gis naa effectivement bi parce que euh, mâle bi dinaa leen wax bi ma ko croisé ak femelle laadum moom si boppam lan la croisement bi joxe bon bi ci des kële moom c'est un race dorpeur la. waaw dorpeur yi aussi dañu adapté bu baax parce que ñoom ñoo gën a ñàkk leen. donc comme euh, seen poil dafa raa. ñoo gën a ñeme tàngoor. parce que Île-de-France yi bu fekkee ni euh, doo leen wat régulièrement. Euh, duñu duñu duñu tenir. waaw waaw duñu tenir. il faut ngay wat régulièrement. waaw waaw di tondeuse di wat. Mm-hmm. moo leen tax ñu am tawféex surtout période bi période du sedd bi sax bu leen bi xawee bare du leen gêner trop mais bu tàngoor bi di dugg boo leen watul rek yaa ngi gàddu àq yaa ngi gàddu àq parce que da da ngay xam ni ñii ñu ngi ci fitna ñu ngi ci coono dafa mel ne rek nga tëdd rek période tàngaay sàngoo bàcc mhm. donc yow itam produit additionnel yi ñu ciy def maanaam granulés yi nit ñi nag ñoom dañuy yaakaar ni granulés yi nga war a jiital fekk du foofu ñax mi boo ko amoon moo gën moo tax ñi nga xam ne ñu ngi def promotion panicum bi ak ñoom seen di wax nañu bay ñax ak yu demee noonu man waaw loolu yëpp lu baax la parce que aliment de base d'un ruminant c'est d'abord la paille c'est-à-dire c'est la fibre donc lépp lu ñu mën a def ci loolu war nañ ko mën a def promotion mais loolu aussi ça un prix parce que ndox au Sénégal dafa jafe-jafe c'est-à-dire da nga koy fay. pour am terre bi pour nga am waaw. terre cultivable bi dafa metti parce que yaa ngi compétition ak agriculture agro business bi bu pare nekk en compétition ak élevage bi donc même surface yi nga xam ni moo disponible pour def loolu dafa bareetul moo tax éleveurs yi effectivement dañuy nekk toujours ci ay jafe-jafe. boo demoon nag ci ay yenn dëkk yi comme ay Brésil ay euh, États-Unis yooyu nga xool sàmm bi li nga xam moom la am ci suuf ñu ni la benn sàmm rek mi ngi am deux mille hectares wala trois mille hectares kooku dangay xam ne ñaar mënu leen bokk di di compétir loolu mooy ñun suñu jaf rek à dire la disponibilité de la terre et la disponibilité de l'eau de l'eau mais loolu bu ñu ko gañee rek alhamdulilah dañ ci sori. gis nañ aussi euh, euh, association yu bëri yi euh, ku mel ni des ak Adam ak Fenanfo ñu ngi xalaat lëkkaloo nekk benn est-ce que jotul tey tamit ñu xalaat pour association yu bëri yi ñu def ko benn kuréel pour man di xàcceendoo di dóorandoo ndax ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, ñooy jiite muy le ministère ak président de la république wax na ko day leen di gën a faciliter pour ñu xam ne bu ñuy wax am na ñoo xam ne ñoom la ñuy mën a wax. non je je pense que pari boobu euh, en tout cas pour li ma ci xam diggante des ak FENAFO maanaam seen lëkkaloo moom presque daanaka am na bu pare soo xoolee ñi ñuy doxalee. Euh, dernière foire bi ñu def Pikine wane na ko leen di tuddee dañ leen tuddee ñoom ñaar euh, benn foire pour wane ni que ñoom ñaar yëpp benn lañu donc ñoom pari boobu au moins ñu ngi koy réussir euh, d'ailleurs même Saint-Louis fitna ak coono bi ñu nekkee mooy gis ñetti su groupe yoo xam ne di xëccoo mais yàllaa ngi ci def sutura également parce que tey ci ngoon sax ci bu soobee yàlla war nañ tase fii sama kër pour waxtaan. pour xool naka la nekkee benn pour jëmale élevage yu Saint-Louis kanam parce que bi ma ci waxtaan ak Abou Kane euh, junj ci tuuti Oumar Sow ñoom si seen bopp ñu ngi xalaat ni élevage yu Sénégal pour mu gën a avancer il faut que mu nekk une seule et unique association maanaam lépp lu ñuy réfléchir andoo dañ ko war a defandoo benn yoon euh, mu cadre de concertation ñëpp nekk benn mu nekk même euh, élevage passionnel bi ñuy wax ak euh, élevage euh, je dirais euh, bi nga xam ni moom la extensif yi bi nga xam ni moom la Ismaïla Sow jiite maanaam conseil national maison des éleveurs ñoo ñëpp boo xoolee bu baax seen xel yëpp mooy di toog di weccantandoo xalaat nekk benn donc loolu moom bu ñu ko réussiree maanaam objectif yi ñu mën ko définir bu baax a baax ku nekk xam lan mooy sa rôle autosuffisance bii ñuy wax Euh, milliards yi ñuy jéggaane di ko wuti ji ay Mali pour tabaski di ko wuti ji Mauritanie pour mottali suñu xaru euh, tabaski am naa yaakaar bu fekkee ni ñëpp toog nañu réfléchir ku nekk xalaat euh, maanaam li mu mun a indil élevage am naa njort ni ci année yi ñuy ñëw ministère de l'élevage dootul am coono di tukki pour wuti ay xar parce que daañ ko mun a amee fii incha allah Euh, lan mooy sa mot de la fin tey euh, émission gétt gi euh, ñëw daloog yow waxtaan ak yow ci li nga xam ne moo jëm ci wàllu élevage plus particulièrement ndax li ñu wax ci élevage tey boo ñëwee fii da ngay gis ne macha allah am na amélioration bu am solo boo xam ne am na fi waaye am na diversité boo xam ne am na ci wàllu élevage bi nga xam ne moom ngay def. bon féliciter la 2S je pense que. bokk na ci chaîne yoo xam ne ràññee nañ leen loolu ci promotion élevage seen émission yi du du gulet peut-être que tey la ñu mos a ñëw en tout cas ci sama gétt mais euh, dimanche bu ne euh, téléspectateurs yi ñu ngi koy topp di ko xaar parce que tous les jours euh, chaque dimanche daañu gis justement ay bergerie yu bees di gis li nit ñi di def li nga xam peut-être nit ñi fesaluñu ko mais di gis njëriñu élevage ak ku ci nekk naka la mun def pour gis ci boppam te émission yu mel nii euh, dañ ko war di di favoriser maanaam sponsor yi aussi war na leen mën a jàppale pour que yéen ngeen mën a continuer di dundal émission parce que nag euh, émission yi si xaalis la euh, c'est des chaînes privées donc il faut bien que société yi nga xam ni ñoo nekk ci provende yi société yi nga xam ñooy liggéey autour de l'élevage ñoom ñoo war a jëkk dugal seen loxo pour def la promotion des émissions comme ça en tout cas maa ngi leen di féliciter di leen gërëm ci teewaay bi ak ci ñëw bi jërëjëf. Euh, jërëjëf euh, euh, Claude Demba Diop ñoo ngi lay sant di la gërëm waxtaan wi amoon na solo lool. mbokki téléspectateurs de la première chaîne privée du Sénégal la 2STV ñëwaloon nañ leen fi nga xam ne mooy bergerie Ademayu bu Claude Demba Diop gis ngeen. waxtaan wi nga xam ne séq nañ kook moom ci li nga xam ne mooy jëm ci wàllu élevage euh, diversité bi gis ngeen ko ci bergerie bi nga xam ne mooy bergerie Ademayo gis ngeen waxtaan wu am solo bi nga xam ne séq nañ kook moom lépp rek jëm ci luy mën a jëmale kanam li nga xam ne mooy élevage fii ci Sénégal mbokki téléspectateurs yi ñoo ngi leen di jox dig daje seen beneen émission gétt gi te di leen ñaanal tabaski jàmm